alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa adduna bi yëpp di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi ñu julli tey ak ñi nga xam ne dañuy julli ci dimaas bi yëpp ndax ñun ñëpp benn xeet lañ te yéene bi benn la jëf ji lenn la yal na yàlla nangul ñëpp li tax ñu julli tey nag mooy ne arafa démb la woon ci àjjuma ji te mënoo ne tey la arafa nga ne ginnaaw suba la julli loolu moom euh, layal ko du yomb te nag àdduna bi lu ci ëpp dañoo julli tey moo xam Amérique moo xam fu mu mën a doon ci àdduna bi ñu néew ñoom ñoo julli euh, suba ci ci dimanche bi euh, teg ci it ngiru imaamu Malik loolu la jàngale la ëpp ci waa ngiru imaamu Malik dañoo ne weer fu mu feeñee ci àdduna bi lazimal jami mooy ñëpp ñoom ñoo ci war a sukkandiku àdduna bi amul ñaari weer amul ñetti weer amul réew mii dig-digal yi nga xam ne moo dox suñu diggante muy réew Mali réew Mauritanie réew Gambie réew senegal loolu tubaab yi ñoo ko fi def kon jot na tey ñu moom suñu bopp ci wàllu diine eh, demaat ci njàngale lislaam yu njëkk yi nga xam ne mooy yu wér yi nga xam ne dara raxu ko suñu ba nag li nga xam ne moo ëpp solo ci liñ ci wax eh, moom mooy dellowaat nit ñi ñu góorgóorlu ci jaamu yàlla ndax jaamu yàlla rek moom moo ñu tax a ñëw kaw suuf lu ñuy def moo xam tabaski la moo xam leneen lu mu mën a doon na nekk ngir yàlla rek ndax ci dolli nag ñi nga xam ne ñoom ñooy société bi euh, lu mel ni ndaw ñi ñu bàyyi xel ci seen avenir ndax ndaw amul lu dul avenir am te ëllëg ñoom ñooy jiite ji bu ñu sàggane seen ndaw ci ay bakkaar bu ñu sàggane seen ndaw ngir bëgg alal bu ñu sàggane seen ndaw ngir yi ñu leen di dikk wala di tayle seeni bakkan ndax ñoom dañoo cher lool te ku cher da nga war a xam sa bopp jigéen ñi tamit xam ngeen ne société buy defaru jigéen koy defar jigéen ñi nga xam ne ñoo gën a euh, jub seeni société mooy societé yi gën a baax amul leneen kon jigéen moom mooy société jigéen moom mooy xaaju askan wi te moom mooy yar euh, beneen xaaj bi des ndax góor naam dana yar waaye cër bi mu am ci yar kilifteef la gën a am ni yar kon jigéen moom moo war a yar dénk tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, euh, waa réew senegal yëpp ci ñu góor góorlu ci saxal jàmm ci réew mi yàlla ñu yàlla defal jàmm yàlla yàlla barkeel seen liggéey yéen tamit waa ATV wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain